wax naa leen ba tàyyi nee naa leen nit ñetti yar jaadu na ci moom yar bi ci jëkk mooy yar bi la waajur yi di yar bi ci topp mooy bi nga yarandoog say moroom ci mbedd mi ba ca topp mooy yow ci sa jëmmi bopp nga yaraat sa bopp ndax yar bi la say waajur yar mën naa am say xarit say àndandoo mbedd mi duñ ko mën a supporter ndax say waajur mën nañ laa yar ci lu la neex yar bi nga yarondoog say morom ci mbedd mi na nga amé habitude di comporté wo ak ñom ak diko waxé ak ñom du fepp nga lañ ko lañ la koy nangulé say wayju sax ñoo koy njëkk bañal waxuma la ak ab jàmbur bo ci jogé nag nit ki yow ya wara dugg ci sa birum nga yar sa bop ndax yar bi nga yar sa bop mo lay permettre nga xam nooy comporté wo ak say ay wayjur mo lay permettre nga xam comporté wo ak say xarit moo lay mayit nga mën am ci sa bopp comportement boo xamante ni bi képp ku la gis du la xeeb la yeb dina la nawloo te dina la jox cër bi war ci yow nit boo bëggee ñu cëral la da ngay cëral sa bopp nit boo bëggee ñu fulaal la da ngay fulaal sa bopp caaxaan yi bari na ci réew mi lool nag pom bari na taxawaalu bi bari na yooyu yëpp waaye ku ci xam ni ndaw gi nekk ci yow ba nga man ko ba di def bu la ni bis dina ñëw nga tëlee ko lool ndaw gi dafay la nga am ci ndaw mu neew mu bari la ci ëpp da nga ko jël delloo ko ci sa diggante ak sa borom te bàyyi pomeeg caaxaan